suñu ñëw tay bi ñëwu yéssal la ndax euh, at bi ni passé dañoo ñëwon participer ci foire internationale de Kaolack bi donc ñu ñëwaat ci ci at bi di 2020 ñu participer ci ñëw ak avec une forte délégation bo xamante ne ay chef produit directeur achat ñom lañ fi andal tay pour ñu ñëw rencontrer fournisseurs locaux yi nga xamni ne ñoo ngi fi nek ak ñi ñu jot rencontrer daw parce que daw dañ fi ñëwoon rencontrer ay fournisseurs yoo xamante ni am na ñu ci fekkaat évoluer nañ lu bëri ci seeni produits ci packaging ak présentation beeg yooyu entre autres umpul kenn ni dañoo am projet d'installation fii nii ci cœur de ville de Kaolack donc dañ fi bëgg a installer li nga xam ni moom mooy magasin Auchan

si ñaari fànn yo xamanteni mën naa ko citer mom moy en matière d'emploi yi nga xamni dañ koy créer emploi direct ak indirect da emploi direct yi lu mu new new néew dinañ employé fi ci Kaolack plus de 90 personnes donc emploi direct yi ñuy créer la te ba paré ay doomi réew mi doomi Kaolack la ñuy employé si biir magasin bi emploi indirect dina am ay société de gardiennage société de nettoyage yo xamanteni ñom lañuy la liggéeyal ngir ñu nettoyer suñuy magasin yi si mode d'approvisionnement yi ñun dañuy liggéey ak fournisseur locaux yi donc la stratégie est ci Auchan Sénégal ngir avec les fournisseurs locaux ba privilégier la proximité Les que nous avons au niveau local physique, Nous Kaolack ñun ce lañ koy donc mon bis bu fi magasin implanté au à ci Kaolack dina sukkali comme comme Kaolack dina dina ak ñi nga ne fi di productrices et ay producteurs liggéey ak industrie avec lépp lu fi am ci dëkk bi nous lañ koy ñu def ko fi